yóbbu na am na lu mu def ci jigéen ñi ba tax na boo demee assemblée nationale tey jii jigéen am na taxawaay mën nañu wax ne 64 euh, femmes ñoo fa nekk ci euh, mbooloo moomu di woy woy ndaw pénc donc euh, loolu réalité la liste électorale yi aussi élection locale yi passé corrigé nañu ba ñu am jigéen ñu takku ci liste yi mais bloqué mooy bu ñu egsee ci jiite bi comme maire wala président département duñ jigéen ñu bëri loolu nag ñu jàngat ci ñaari yëpp association des élus locaux mooy ADS lëkkaloo ak AMS am benn kuréel bu tudd cellule d'appui aux élus locaux kayel suñu rakk suñu mag abisi la jiite jël ci taxawaay bu mat man mi ci ga giir bu gàtt octobre bu passé femmes yi nga xam ne ni ñoo nekk ci euh, liste yi ak ci jiite maire yi jiital ma ci kuréel bu ñuy wax REFFEL euh, donc ma war taxawaay bu ma taxaw pour que loolu manqué jigéen ñi ba tax bu ñu def ko Pikine def ko Géejawaay def ko Bambey tey jii ñu ñëw Tivaouane parce que xam nañ ne Tivaouane jigéen moo fi nekk te am na taxawaay boo xam ne mën naa may may may rafet di xam ni euh, loolu ci jàppee jàpp ba war euh, bu ci yàlla àndee élection locale yi ñu jël dëgmal ci yàlla àndee dina am am solo lu xew législative yi d'abord mais aussi locale yi parce que foofu la maire yi ak président département yi di jongante loolu mooy but yàlla dina def suñu jëlee li nga xam ne ni moo ñu tax a jóg tey mu egg cinquante au loolu amee jéego am solo laa yaakaar. ci ay jafe-jafe ndax jigéen ñi daañu bëgg yor ay ndombo waaye seen formation a des ci l'école foofu commencé euh, ca bànjaxaan ba fa mu sësoo nga koy rek donc jigéen ñi euh, dañu war a Sénégal ni jigéen dafa war a ba am fukki at juróom-benn donc scolarisation des jeunes filles problème la loolu mooy première mesure bi war a jël suñ ko toppee ba ku dem ba seen sa jàng xaw a ñu fexe ba créer la formation boo xam ne dina la indil euh, jumtukaay yoo mën a jiite donc loolu fa lañ koy commencer bu loolu sottee dina. ñuy faj tey dootul amati cest à formation des jeunes fi à la base pare capacité leen ba ñu doon des femmes euh, jël lu mel ni mairie wala président conseil départemental loolu man moom mooy sama jàngat ñu ciy taxaw ñu ci loolu nag day mel ni nga jël benn kii rek toqal ci